foofee tamit guerre ba ma nga fay jaba jonge journal bi nee étude bi li wane maanaam fukki sénégalais yoo laaj ñeent ñi ñëpp dañu lay wax ne la impôt et domaine dañuy lekk guerre yéen a gi di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu am na beneen xayma boo xam ne def nañ ko ci lu jëm ci wàllum tuux mi wàllum cigarette waaye li rey ci àdduna bi at mu jot ndax bu ñu ko xayma lu toll si juróom-ñett ci million ci doomu aadama yoo xam ne danañu faatu ci lu jëm ci wàllum tuux stade bi nga xam ne moom lañ doon inauguré ni ki démb tuddee ko maître Abdoulaye Wade yéen kaay gi na bis du rëy lay toll la maître Abdoulaye Wade ni ki démb Macky Sall na ko wax na intellectuel bi xam ne moom la doon wax na parcours multidimensionnel bi xam ne Abdoulaye Wade amee na ko yéen kaay gi na ni ki démb bis la si bis yéen kaay gi di direct news na am na yenn sénégalais yoo xam ne ñoo ngi sampay laaj ndax ne na loole lépp maanaam gisuñu ko yéen a kaay gi di suddu ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu estat maître Abdoulaye Wade bi bi ñu ko xaymaa lu toll ci cent cinquante six milliards la ñu ko liggéeyee yéen a kaay gi de la témoin nee na en tout cas li am ba de sala mooy Macky ji jar ndax dafa def rëy te ku def rëy am lu rëy moo tax journal bi xëy di wax Macky Sall merci naan ko jaaraama naan ko njokko njal naan ko sukuraana yéen a kaay gi mu a méngoo jamono ci àdduna bi maanaam estat bi a moderne ci ko du sunuy kàddu la témoin la yéene kaay gi da la Soleil xëy fësal ci xët mu njëkk nee na démb cérémonie spectaculaire la ñu gis ñaajo yéene kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naa ñu wax yeewu askan wi ñoom ni ki démb ñëwuñu ca ndaje ma yéene kaay gi di réew mi ko di cee nee na en tout ambade sall mooy stade maître Abdoulaye Wade ni dañu ko daal di unicré njiitu réew mi di président Macky Sall na bu baax a baax ki nga xam ne moom la wuutu ci réew mi Sall woo na ndaw na leen roy leen ci Abdoulaye boo xam ne Macky nee na yéen ndaw ñi yéen a ko moom Sadio Mané na ballon d'oram daf koy jël yóbbu ko ci musée Pape Bouba Diop bi nekk ci stade bi yéen kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal bu ñu waxante dëgg Sénégal ma ngi ci njobbaxtalu Afrique ci lu jëm ci wàllum football ak lu jëm ci wàllum diplomatie yéen kaay gi nee na ni ki démb amul xaaj amul seen ñu baree bari ñoo def déplacement dem ci stade ba fekk ndaje ma yéen kaay gi di Dakar Times xëy tënk kàddu yépp ne gars yi nee ñu yéen kaay fekk fa mi nga xam ne mu jiite FIFA nee na stade nga xamante ne moom la ñu inauguré bokk na ci yi nga xam ne ñoo gën a méngoo jamono gën a rafet ci àdduna bi Patrice Motsepe mi nga xam ne moo jiite CAF moom nee na Macky ak ki nga xam ne mooy Paul Kagame ñooñee ñooy avenir u Afrique yéen a kaay gii di record ni ki démb match de amoon na match de boo xam ne bu neex la ñoom El Hadj Ousseynou Diouf ak Fadiga ak Koli ak Tony ak Salif Diawa ak Henri Camara ñooñu ñoo doon football ak ñoom Emmanuel Adebayor ñoom ñoom Didier Drogba Samuel ku nekk benn bal nga dugal sa morom Fadiga a maître Abdoulaye Wade yéen kaay gi di évidence nee na ni ci inauguration bi maanaam folklore rek lañ sa gis xumbaay mbumbaay ak yàqub xaalis boo xamante ni mënoon naa ñàkk ndax jamono ji nga xam ne Macky Sall ma ngi def inauguration di yàqub xaalis jamono jooje nag jàngalekat yi maanaam ñoo ngi laaj nag li nga xam ne mooy seen àq ak seen yelleef te jamono jooje tamit askan wi soxna nañ ba maara détaillé ndax nag dund ngi nii dafa yokk amul lenn loo xam ne maanaam séerul ci réew mi yéen kaay gi di enquête nee na nag ni ki am na lenn loo xam ne naroon na ko yàq ndax ci biti nag mujjoon na tàng jër biir ndax dafa am ay ndaw ñoo xam ne dañoo ñëw bëggoon a dugg ci stade bi ñu nu leen du ngeen dugg ci stade bi yi commencé jolle yéen kaay gi ne na invitation yi nga xam yi ko doon jaay yéen kaay gi di 24 heures ñu fekk fa benn dërëm centime boo xam ne jëlee nañ ko ci Karim Wade loolee dama sunu làmb xëy duñu xibaar naan ñu combat rëg-rëg Sa moom la gars